xool tey sa yaram war daw même bu ñu xoolaloo toujours président bu mu nekkee Popenguine di préparer ay dossier dafa romb ay di gis benn miir bu daanu dafa automatiquement dafa taxaw mu wàcc moo wax élèves yi mu ne jël naa man maay miir bi man maa koy defar pour dire que li ñu def nii dañuy roy son excellence président Macky Sall la ñu roy parce que lii mooy politique de développement bii nga xam ne moom la ñu bëgg indi biir Thiès parce tey ku xool surbumier yi ñii ñu jar jàppale nañu parce que lii mooy développement réew tey boo demee à nga dem États-Unis wala Japon wala Chine xale bu ndaw bu am deux bu am cinq ans machine bi ñu def montre ñuy sol nii moo koy defar xool leen tey ordinateur yi xam ne tey chaque jour ñaata nit nañu formé mais ñii ñoo jar a jàppale man de si sama bopp ñun en tant que mouvement ànd soxali Thiès c'est un mouvement politique mouvement boo xam ne ñun dañuy ñëw pour jàppale son excellence Macky Sall parce que Macky Sall tey bu liggéeyul woon dañu ànd ak moom dañuy xam ne mu ngi liggéey li may toujours di ko faral di wax mooy président continue dans sa lancée wàññi sa jaww bul tontunte ñun nag dañuy ñëw pour jàppale askan bi dañuy ñëw pour lan pour waxtaan askan gi li may faral di wax toujours koo jox ndékki jox añ boo ko diggee reer nga reer lii matériel ngeen imprimante bi barki démb sama benn xarit dama ko woo ma ne ko man de bëgg naa seeti ay vraiment benn benn euh, école. mu ne ma ah mu ne ma loo soxla ma ne ko imprimante laa soxla mu ne ma multidimensionnel laa lay may. lii ngeen gis nii c'est des gens xam ne qui son là ñu bëgg vraiment jàppale son excellence président Macky Sall des gens xam ne ñu gëm si notre valeur ñoom ñoo nekk si ginnaaw di ñuy jàppale ñun ñu ngi politique amul benn dërëm mu autorité bu fi dugg lii ñu def nii politique sociale la ñuy def. li rafet na lool boo xoolee lii nga xam jox naa ko tey ñi jarul câble sax à partir même de votre portable mun ngeen rapidement tirer sen sen imprimante sen courrier yi. li ma wax rek moy limay far li ma waxoon rek moy désormais aujourd'hui je serai votre parrain principal. je ferai tout li aussi na fekk jottali son excellence le président Macky Sall xamoon naa tey xaw xat budul won tay naa indi ki nga xam tanam c'est l'homme fort c'est l'homme c'est l'homme du confiance du président tay budul won tay dafa am tey réunion tey naa fi indi mu tëgg bët parce que li tey doon la yaram. parce que li le président soxla na genre yu mel nii des gens yoo xam on les forme à réparer des ordinateurs mais lolu réew la bi Sénégal tay lo xol informatique tay toll lañ ci instant bo xam tay ku xamul informatique bokkutoo man je pense que aujourd'hui lii lu jara a désormais lim li mu wax moy en tout cas mouvement ànd soxla Thiès nous, duñu wax di on est mouvement bu xam dañuy ñëw lépp lu ñu digg doom aadama dañ ko respect yëpp bu Nous ne mënuñu ko duñ ko def bi ñëw léegi-léegi waxtaan sama ko man de fi Nous xni ni xamna nous bu disponible ko jox ñu ko mais li la a un début seulement on va vous continuer à vous accompagner ubbil na len sama buntu je peux leen def activité culturelle wala leneen naa vous j'ai toujours la wax vous wax ma président bi mu lan ma mission c'est lan dama bëgg dindi fi affaire euh, inégalité inégalité dans les mêmes d'égalité dañ parce que la la semaine passée dem de santé des handicapés moteurs Le musul am mardi gras depuis 1992 amul keroog bu ñu ñëwee li ñu leen defal moom lañ leen defal keroog jàppale leen si wàllu formation jàppale lu defal nekk bu ñu kontaan ma ne ko ñun de ñi fi nekk ñu bëri dañu politique mais ñun li ñu def mooy politique développement dañuy def lii pour yee doomu aadama yi xamal leen ñun dañu jóg pour liggéey nga ngir liggéey Thiès liggéey Thiès jàppale askan wi ngan pour Thiès émerger askan kan en tout cas li mu mun mooy li may fi may daanele sama wax rek mooy kontaan naa

en tout cas je vous promets que ce que vous ne nañ ko le président Inch'Allah, rabbi si Ce que vous vraiment je suis vraiment très ému très je peux même pas parler parce que ce que j'ai vu ici vraiment ça me va au cœur en tout cas comme je dis nous, on est un mouvement de développement un mouvement politique on est là pour accompagner son président le son excellence Macky Sall nous nous sommes là seulement pour parler de la démagogie pour parler de la théorie nous sommes des acteurs de changement nous sommes des acteurs, nous, voulons être plus proches de la population. En tout cas, ces actions qu'on a fait aujourd'hui, on va continuer à les pérenniser. À les On va continuer aussi à vous accompagner, parce que c'est ça le développement. Le développement, c'est ça. Si vous partez aujourd'hui en Chine, au Japon, vous allez voir, c'est des enfants de 4 ans, de 5 ans qui montent des ordinateurs. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est des gens qui ont plus de 50 ans qui font des trucs. Moi, l'autre jour, j'ai même parlé avec un ami c'est le patron de Boss. Il me dit que moi je pas à l'extérieur, j'achète plus de plus de 1000 ordinateurs pour venir offrir des étudiants. Moi je dirais que maintenant c'est plus la peine d'aller à l'extérieur. Il y a des jeunes qui sont là, très dynamiques, qui sont là pour réparer les ordinateurs. C'est des jeunes accompagnés. En tout cas, nous, Mouvement antonio Thiès, on est là pour, pour le développement de la ville de Thiès. Vraiment, on est là pour accompagner son essence président Macky Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, nous, on est des gens d'action nous sommes là, nous, on n'est pas des gens d'origine, on est des techniciens, des technocrates. De toute façon, moi, ce que je veux dire, on va continuer à vous accompagner. Désormais, je serai votre parrain. Je vous ai ouvert toutes mes portes. Si vous avez des questions, des suggestions à me faire, n'hésitez pas à la faire. De toute façon, je serai toujours avec vous. Vraiment, je vous remercie. Je suis très content. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste un début. On va continuer à vous encourager, à vous accompagner, Inch'Allah Rabbi. Vraiment, Merci. Merci bien, donc, nous

tey ñu jóg ànd ak moom di accompagner ci action yi muy def yépp ci biir dëkk bi je pense que action am tey wër nañu tous les cinquante trois quartiers de Thiès je parle en connaissance de cause tay amul quartier boy dugg tay te xamuñu kan moy Habib Niang donc li imaam wax dëgg la caaxaan dugg ci ku koy lamb da nan la téel sa lamb li may def ci lamb ji xajna fenen kon président du guddal dama la doon dalal jàmm rek parce que fi, suñu kër la nga fekk suñu fi kon dinañ la dalal à ñaanal la yalla lepp li nga mébét yalla nako yalla yàlla bala continuer damay féliciter Mafal c'est un collègue qui il est très très engagé. il est très très engagé a demandé une mention spéciale à Mafal sal parce que tay je pense que man man mi nga xamante ne ñëw mafal sama loxo la jaar ba mu ñëw fii tey rusuma du tere nga mën leen Habib mi li mën yàlla moo ko ko jagleel ku ko nangu yàlla ko jagleel ku ko nanguwul yàlla moo ko ko kon nañ ko nangu. donc du ma guddal donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mouvement bii ñu ne di ci liggéey yàlla na doon mouvement boo xam ne tey àdduna yëpp nañ ko naw te yàlla musal ñu ci cet motalil ñu sunu yéene ñun ñëpp yàlla tapé xol yi ñëpp nekk benn ñuy xàccandoo di dóorandoo ci barke sayyidina muhammad sallallahu Alaihi wasallam savoir comme autorité tey li nga xamante ne tey indi nga ko fii tey rëy trop trop trop ci ñoom te yaakaar naa ne lii nuyoo rek la li ci des ñëwagul nuyoo dafa ñëw nuyoo rek mais li ci des incha ah yéen bu ngeen jàppanteeg moom di ngeen xam ne gor ngeen ko seexal te man damay lancer aussi un message aux parents d'élèves sourds ñu jege le président Habib Niang fexe nu ngeen jaxasoog moom di ngeen xam ne kat gor ngeen ko seqal donc duma ma guddal foofu laay yem. suñu xol sedd na trop woote yomb na waaye woote ñu wuy la dafa jafe te li tax lii mu nekk nii sax mooy tey jii dafa tombeek poroxaan te maam jaara xam nga lu mu wooteel man la loolu la yàlla dogal waaye nag sant nañu gërëm nañu ñi ngi sant bu baax suñu gan gii di suñu doom di Habib di ko wax dalal ak jàmm ak ñi mu àndal ñëpp di ko wax rafet lan teewaayam yàkkantu woon nañ koo gis namoon nañu ko lool. ginnaaw loolu nag may sant ma faal faal ma faal mi sàll mi ak bépp équipe bu mu nekkal fii nag ak duwaa yi mi toog ndax ma faal dañ koy bàyyeeg yàlla rek di ko ñaanal suñu borom fu mu bëgg egg ma ko xam yàlla na ko fa yàlla eggale ndax ñun amuñu suñu xale yi lañu am. sont ñoom torop bañ juddoo ba tey ku ne xam na ni laago mënoo wax mënoo dégg lu metti la waaye nag jëm leen koo muñ parce que yàlla moo lu ko jox te bëgg ñu mu taxawaalu bëgg ñu ñu yalwaan bëgg ñu ñu def lu gën si doonu danoo ñaan yàlla ëllëg yor ñu ñun ñi di seeni waajur te am nañ ci yaakaar te mafaal mii li ko doyen yi mi ñaanal defe naa ñaan nga alhamdulilah ndax mafaal mas ta yor muuma de mafaal jàngul muuma amul doomi muuma te ñun ñi nga xam ñoo jur xale yi ma ñu dàq wax ak xale yi lu ñoo naqar ci sunu njaboot ma faal ñu koy wax lu ñu jaaxal ci sunu njaboot ma faal koy wax xale yi bi ñuy ñëw fii am nañ comportement boo xam ne man de benn ci man sama doom li ma gënoon a béy muy wàcceeg ceeg daangu la ma doo wat bopp bi ma faal ñu ci dimbali maak sama moroom yu bari nag ak leneen ak leneen kon ma dañ koy ñaanal yàlla rek yan bii ko yàlla yen yàlla na oyof trop ci moom yàlla na damu ci sunu xale yi liñ ci yéene yàlla ko yàlla defal sant nañ ko ñoom parents yëpp ba sant nañ la gërëm nañ la ñoon la ñaanal toll ñaan yàlla gëpp sax xëy na baaxul waaye nag ñoon lay ñaanal yàlla ma faal fa nga bëgg a egg yàlla na la fa yàlla eggale ci barke Seydina Muhammad di rafet nag teewaayu doom jii di Habib keroog man mi maa fa ànd mi ngi dem fa dama ni ma faal bàyyi ma fenn dama ko di ma faal sama xol la dal na sama xol sedd na sama xel dal na mu ni ma lu tax ma ne ko damaa gis ci moom lu ma gëj a gis ci ab politicien mu ne ah, ma ne ko ñëw fekk muy am na ñu leen seet muy damay julli mu ne ah, ma ne ko bariwul li ma koy gis de bariwul li ma koy gis nag ma ne ko loolu rek moo tax ma bëgg ko mu ne ah, ma ne ko ak yaram nag ak tegginam li ñu recevoir te lam ñu waxante woon ñoom ñun nag ñoo ngi doog a commencé de waaye gis nañ lam ñu woon parce que dafa ni ma dinañ fa ñëw dinaa fa yónnee. xool li ma man dinaa leen ko jàppale te def na ko nag ñun nag am ñu dul suñu doom yi Habib ñu lay ñaan suñu doom yi nga jàppale ñu loo man sonn nañu lool ñun parent yi heure bu sa doom di ñëw di ko jox paas mu ñëw ayale tur rax ci dolli ay magi jëmm lañu dañoo war a yor seen kër war a yor seeni jabar war a yor seeni yaay xeebuñu dara Habib ñu bëgg xale yi koo ci mën a jàppale nga jàppale leen foo gis place boo xam ne mën nga leen faa dugal nga dugal leen ca parce que lii ñuy def mën nañ ko de tuwaar fakkaat la macha allah bari nañoo xam ñi ngi dox ñi ngi wax yow seen nopp yii di dégg yow seen xel bi waaye mënuñu dara ci lañu man kon nag lii leen yàlla jagleel ñu nangu ko lool sant yàlla ñu bëgg nag kuñ ci jàppale ndax ñoom ñi lañu am Habib daal sunu xol sedd na ñun nag suñu njaboot gi képp ku ñu jàppal suñu njaboot gi ñun parents yi dinañ la jàppale muy guddi muy bëccëg képp ku ñu jàppale sama njaboot gi ñoom la am di te ñoom la ñuy demoo kon dinañ la jàppale lu ñu man foo nu woo la fa wuyu loo ñu laaj la ko jox ci barke Muhammad yow nag sa xel dal ndax xale bu amee yar am teggin xam fa muy teg tànkam macha di nga am lu baax te fal yal na la yàlla lafal cat yoon wii nga jaar bu ko gi ndax danga ni duma wax lu ma dul def duma diggee lu ma mënul ci développement naa ne yow danga ni suqali Cees nga tudda yow damaa bëgg nga suqal waaye suñu waa xale yii suqalu ñun parents yii te yàlla dina la jàppale nag ndax xale yi ku jóg ngir ñoom rek incha allah yàlla dina la jàppale ca kaw ca kanam rek incha allah ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm parents yëpp nag sunu xeel dal la xale yaa ngi sa ginnaaw gis nga ñoom ñi taxaw ñii kenn ku ne am sa carte vote xale yii yëpp élection yi passé sama doom daa dikk ni ma koy voteel ma ne ko loolu laaj ki may voteel mu ne ma koy voteel ma ko waaye ko mu ne ma ki def nii ma ne ko kan mu génne carte ba ne ko waa kon kii laay voteel kon baax na noonu lañ def nag sunu waa kër gi yëpp tey jii ba may dikk daa jabal daa jabal daa seex daa jabal sama gorobee daa xëy ni ma duma dem mu ne ko di nga dem dañuy am gan nan dem jabal ñëpp ñu ñëw kon nag yàlla na la yàlla jàppale xale yi ku leen jàppale yàlla jàppale la de parce que ay bàyyi ma ay ay njabootu suñu borom lanu yàllaa leen jàppal boppam te nag defe naa weer di gis bokku ca te lii nga def nii lu rëy la si ñun ndax mosu ñoo gis benn politicien bu wax ak ñun ñu wax ak ñun ñaw def lii mës ta am guddeel baa ngi nii guddeel baa ngi nii kon nag yow li ngay wut defe naa incha allah yal na si yàlla jàppale yàlla na yàlla may la ndam ba nga yom dégg fu kawe kawe kawe kawe. yéen yàlla moo koy may doomu aadama c'est pas donné joxuñu ko ku nekk pour nga mën a wax ak ñii wala nga mën a nekk ak ñoom parce que ñii suma sëriñ daf ma doon wax leen ni ma ñii duñu wax ci àdduna waaye ñooy plaider ëllëg nit àlaaxira ku lu waay di lu bon. bu ñu bis boobu la ñuy wax ak suñu borom te bu ñu suñu borom ni ñii dama leen tere woon ba wax neexee waxuñu ku ñu ñaanal mu ñu kon ñii ku leen jàpp am dara ku ci yàlla jox doom bii sama Abdou ni ñii ku leen ci jox nga am ko bu yeboo nga téye bu baax parce que ñoom ñooy avocat ëllëg avocat yi fii dañuy wax rek waaye ñii duñu wax fii de waaye buñ taxawee suñu kanam borom bu ñu nga dégg ñu ñu musuma da formation jour mieux yàlla moo ma boolee ñoom ma nekk ak ñoom ñu déggal ma lool monsieur Habib Niang tey lii nga fi indi danga fekk ñu nekk ci benn phase bu metti fii xale yi di jànge ku ko xool xam ne lii saal bi bu ngelaw ñëwee day metti bu tàngaay ñëwee day metti bu nawet ñëwee day metti waaye Thiès li muy rëy rëy rëy avec beaucoup de politiciens personne n'a jamais mis le pied ici je dirais que une seule personne kenn moo mës a ñëw premier promotion bi mu jënd leen ñoom ñëpp blouse muy Salif Gueye ku nekk da koy gërëm moo ko jëloon jëndal ñëpp blouse moo jëndaloon jël xaalis boppam jëndal ñëpp blouse tey deuxième action bi am Habib manqué nañu tournevis Habib matériel bi nga teg nii lu ñu manqué la waaye dañ lay ñaanal yàlla parce que dañu joxaat effort pour ñu gën a parce que bi ma leen ñii dañu bëgg ñu jàppale leen pour ñu gën a liggéey taxaw jeudi lañ fa dem tey di jeudi nga indi kon bu jeudi prochain nga tabaxal ñu saal bi bu jeudi prochain nga tabaxal ñu saal bi saal baa ngi nii su ma fi ñëwee xool ñoom boo gisee may insister pour souvent ma di len wutal ñuy am blouse bu ñu gisee di sol blouse ñoom bi sa sànq peut-être sont délaissés loolu moo tax ñuy insister pour ñu am blouse li ci gën a neex blouse yi bi ñu ko commencé tailleur di ko ñëw am na parmi ñoom benn jigéen boo xam ni léegi mooy ñëw blouse yi mën naa ñëw yëpp c'est un sourd muy muy nabu anamu Seynabou kii c'est elle qui ku moom mooy ñëw blouse yi léegi. léegi bu njëkk ba tailleur la ñu jëloon mu ne léegi monsieur déedéet man jàng naa ñëw ba pare léegi blouse yi ñu ñëw ci école bi ku ñu ku sa parent joxe pour ñu jënd kii tissu bi rek ma ñawal la waaw ceinture noire la en taekwondo kon tey xale yi bari na ci ñoo xam ne am nañu métier mais lii dañ ko lu ñu bëgg la monsieur Niang jërëjëf lii nga def nii doo ko rëccu te li ma lay dolli xam nga ku la jox daal ku la jox añ ku la jox ndékki bu la ni di añ di nga gëm di nga ko gëm ñun suñu añ mooy saal bi te li nga jox nga ñu ndékki de ndékki nañu ba suur parce que lii bu ma ko xoolee man étant technicien étant formateur je suis vraiment satisfait on vous remercie dama bëgg ñëpp ñu tàcc ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax façon politicien bu nekk gis na ñun politique ñu tey dañu ñëw pour recevoir un don de solidarité avec l'appui les parents sourmiers Habib Nia dañoo tuddi merci tey de su ba doon jàngal xale yi une heure de temps léegi xam naa dinaa mën a def quatre heures de temps parce que y avait un problème de matériel on vous remercie kontaan nañu lool di gërëm aussi sa équipe madame Badji une dame dynamique parce que bi nga ko fi yabalee ñëw na fi guddeeg bëccëg daf may kole guddeeg bëccëg ni ma nii mais nag daf maa bëgg teg ay principe ma ne ko dafal ndànk dafal ndànk yow sa rythme ko mu ne ma damay daw ma ne ko man du ma daw damay waax sa secrétaire général elle fii mon élève je l'ai formé ici mais daw kat la nag ab séeréer la bu bon a bon la que j'ai eu à former ici jaar na fii ci man

préparé nañu wax naa ko madame Badji je sais que vous allez travailler avec parce que boo yabalee nit mu dox lépp lu ko war da ngay ànd ak moom ci loolu on vous remercie kontaan nañu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.